souvent ci sentiment wu euh, réactivité maanaam li ñu naan nguur du réagir nguur dafay agir moo dal sunu nguur bi dañuy nekk toujours ci le fait accompli et conséquence bi mooy dañu jël décision boo xamante ni yeneen li nga xamante ni mooy nekk incidence yi day xaw nekk jafe-jafe ci ñeneen tey indi na jaxasoo ak pëccëxoo ci ñi nga xamante ni ñooy population yi ak zone bi law na ba Rufisque Amadou Sène ñaa wax na ko mais li nga xamante ni ñu ngi koy dund nii euh, gaañe moom lañ doon dund bi ñuy wax waxi départu acte trois décentralisation acte boobu nga xamante ni la ko sooke woon politique politicienne la woon xeex benn Khalifa Ababacar Sall mu jur conséquence nationales yu désastreuses dem ba ci cette contribution euh, économique locale boobu nga xam ñu ngi ko doon wax ba nga xamante ne jural na Rufisque mi nga xamante ni Sococim daan na ko jox nangam ci milliards loolu wàññeeku jural na yeneen dëkk yu mel ni dakaar ak yeneen ak yeneen doon am patente yu baax ñu ne dañ leen koy séddale ak ñeneen ñi nga xamante ni bokkuñu sax ak ñoom localité donc conséquences yi nga xamante ni euh, président Macky Sall mu ngi koy jël ci ay décisions souvent euh, li koy sooke mooy moom objectif ya mu am et souvent ay objectif am